donc euh, euh, Bessel ci carnet de voyage euh, ñu jëm dëkk bu ñu naan Kulaar Soose. waaw Pape Cheikh ni ñu ko waxee woon sànq rek dañuy dem dëkk boobu nga xamante ne mu ngi tudd Kulaar Soose lan moo waral Kulaar Soose ak ñan ñoo ko sanc nañu dem xool loolu rek daal di dellu si waat. gis ngeen nag dañuy toog suñu papa. moom moom ñu nag fas yéene rek daal di ñu nettali histoire bi bu ñu ko nettalee nag suñu gédd daal di koy traduire li nga xamante ne rek euh, ci soose la koy wax parce que nee na wolof dafa xaw a dese tuuti suñu gédd dinañu ko traduiral euh, si li nga xamante ne rek moom mooy kàllaamay wolof. Papa euh, ñu ngi lay sant di la gërëm ci dalal bi nga xamante ne dalal nga ñu ko tey ñu bëggoon xam d'abord dëkk bi kan moo ko sanc ak kan moo fi njëkk a jaar. Mmh. minga kumalade mm-hmm. isi kuma yemmello minga kumala isalode men fo pour summa kamala mm-hmm. parce que na sayin kan ni ba fola fa sayin kan dula walla ɓe ployamoy mm-hmm. ala kan kilarka wallahi wallahi maanaam ci ci cosaan yi dañu boole ak séeréer yi maanaam moo amee doole séréel yi mhm. njaay mhm. looloo tax ñu wax ne njaay alafta mhm. dinga be laari wo fono ñamen na ayalo li ñu pa bi wax rek euh, xam naa ne dañ koy xaw a gàttal daal di koy résumé nee na ku tudd Cheikh Ndiaye moom moo dugal li nga xamante ne moom mooy diine l'islam fii ci dëkkum Pulaar parce que Pulaar dafa nekkoon nag dëkk boo xam ne dëkk ceddo la ñu woon te nekkoon nag ñoo xam ne ñu amoon doole lañu ñu ne ko fii de mënoo fee dugal diine l'islam ndaxte faaw nga xeex ak ñooñu noonu la def nag dina xanteeg ñoom daxanteeg ñoom ba ñooñu nag daal dugg ci li nga xamante ne nag moom mooy diine l'islam suñu pap ji nag nee na bi ñu doon dugg ci diine l'islam dafa amoon amoon juróom juróom-ñaar juróom-ñaari mband yoo xam ne dañ fi nekkoon mais mband yooyu mband sàngara lañu mu dem ci sëriñ ba sëriñ ma ay mamati maamam ñoo ñu dem ci sëriñ ba ñu ne ko nag yooyu yëpp dina toj mu ne ko ah déedéet loolu mënul nekk dinañu toj nag li nga xamante ne moom mooy ñett yi waaye ñeent yi dinañu des paa bi nee nag buñ ko merloo ba merloo ko nag ah bu booba nag eh, day génn sax ci li nga xamante ne moom mooy diiney l'islam parce que bu boobaa du baax moo tax nag ñeent mband yooyu ñoom ñoo fi nekk ñoom ñooy sanc dëkk bi ñoom ñooy saytu dëkk bi ñooy protéger li nga xamante ne ñoom ñooy euh, nekk ci dëkk bi nee nag kon dinañu def ndànk papa duñ la merloo <laughs> incha allah dara yaakaar naa ne merloo wuñ la de balaa sa balaa di nekk si yow di ñëw ci ñun ah? nee na nag ñu ñëpp ñi nga xamante ne lim na leen ñooñu jaar nañu ci dëkk bi waaye ku tudd nag Abdou Guité kooku moom moom nag moom moo leen ñaanal ci dëkk bi ñaanal leen ci suuf si ba suuf si barke rawatina nag fi nga xamante ne moom mooy faro yi parce que faro yi ñu fa defoon rek maanaam euh, amul woon njëriñ euh, ceeb bi ndox mi da doon yóbbu jiw bi mais tey nag moom kooku moom moo leen ñaanal ba faro yi daal di barke lool ba jigéen ñi buñ fa béyee ceeb ceeb bi daal di barke daal di bari lool lii moo nekkoon nag histoire li nga xamante ne moom mooy fulaar soose dégg ngeen kulaar donc rek kulaar dégg ngeen tur bi li nga xamante ne turu soose la euh, Moussa moom moo ko fi sanc kon nag nag papa ñu ngi lay jaajëfal lu bare bare mm-hmm. ñu lay wax rek ale duwaaw soto mu ngoog euh, ñu ngi jéggalu ci loolu euh, Bessél kon nga seeti woon kilifa yooyu nekk ci dëkk boobu la ñu expliquer tuuti rek ci tënk. Euh, histoire Kulaar Socé. Pape Cheikh Kulaar Socé nag dafa amoon benn waay boo xam ne buur la woon. Mm. dañ ko sonaloon ci dëkk bi mu nekkoon muy ñëw nag di dox ci àll bi ba gis nag foofu mu ne ñi ngi kulaaroo ñi ngi kulaaroo. Mm. maanaam fii de nekk na bërëb boo xam ne mun naa fi nëbbatu mm. te naat na ci Socé léegi nag comme te nag Socé yi ñoo fa dëkk ñoom ñu dem ba yokku fa. soose kulaar soose mm. mais diggante séeréer la ak soose ah. moo tax nag ñu tuddee ko kulaar soose ah. mais tey bu ñu xoolee ki jóge woon ñëw sanc du soose mm. séeréer la woon mais nag ki ko fekk si mu nekk soose kooku moom moo ñëw nag daal di dem ba dëkk bi ñëpp dëkk fa nekk ay soose kon séeréer bi daal di réer si seen biir dëkk ba nag dëkku ceddo la woon ndaxte période boobu affaire ceddo moom moo amoon euh, sànq yi na ngi dégg ci reportage bi ku tudd Abdou Guité moom moo jóge woon nag côté Fouta daal di ñëw nag indi leen diine l'islam mais bi mu indi diine l'islam bi dafa nekkoon lu metti parce que euh, moment boobu dañu amoon ay sept euh, cinq professeurs sax <laughs> utiliser maanaam naa wax rek ndaal parce que xam naa ne mbënd bi comme te sama ay mband voilà sama wolof leeru euh, làkk yi sax benn leeru ci <laughs> euh, set mband yoo xam ne ñoom ñoo nekkoon foofu te mband yooyu yëpp bu mband voilà bu nekk dafa ko prononcé wul leneen ngay joxe waaw dañu amoon euh, lu mystique yoo xam ne da ci nekkoon kooku bi mu ñëwee mu ne leen su fekkee da ngeen bëgg a nekk si diine gi ma nekk mhm. il faut que lii ngeen gëm ngeen bàyyi ko ngeen daal di dugg ci li nga xamante ne moom mooy diine l'islam ñoom tamit ñu ne nag mënuñu jékki-jékki ñu tojaloo lépp mm-hmm. comme te set la nañu bàyyi ñeent yi mm-hmm. yi si des ñu daal di koy toj ñu nekk ak ñoom parce que loolu moom mooy aar seen dëkk aar tamit li nga xamante ne moom mooy mbéy mi bu ñu mm. béyee mu mun ñu mun a naan kooku ne ko léegi nu ñuy def mu ne ko comme te nee nga mënuñu toj lépp léegi dañuy dem ci ñeent yi mm-hmm. ñu am lu ñu def ak ñoom wax ak ñoom xëy na mm-hmm. ñoom i diine l'islam bi mm-hmm. dinañ nangu loolu ci dëkk bi ci la ñu nangoo nag diine l'islam bi ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca ndaal yooyu ñoom tamit mën a accepté ñu nee nañu loolu mun nañ ko boole ak li nga xamante ne mooy suñu diine ñun sax dañuy tuubaale kon ñooñu tamit noonu la tuubaale ba aar dëkk ba ba nga xamante ne tey bu nawet ndox mi bariwul mhm. dañuy dem foofu mhm. ñaani ji ndox mhm. yàlla may leen ndox faro yi mën a naat gerte gi mën a naat dañ leen di jaajëfal parce que nag euh, at bu jot bu ñu béyee dañuy jël camion gerte indil ko ki nga xamante ne moom mooy suñu patron mu ngoog donc dëkk baa ngoogu dëkk boobu di euh, Kulaar Socé et puis euh, docteur moo waxaat ko suñu suñu histoire dafa xaw a similaire mag ñi bu boo ci demaan ci dëkk boo xamante ni amuñu benn diine bu ñu gëm il faut beneen mag ñëw mission am nekk dugal leen ci diine ku mel ni sa maam euh, Serigne Kokki mm. moom daanaka Sénégal euh, ñu bëri euh, doon nañu ay jullit grace ak moom. waaw loolu xam nga tamit toujours dañuy wax ne dafa am kuy dem jëggaani. Mm-hmm. wala ku mu ñëw indi gis nga ci tur yi rek. boo mm-hmm. doon étudier li ñu tubaab di wax onomastique. Mm-hmm. boo xoolee bi muy wax benn moment rek la abdu dugg. te abdu boo ko xoolee ci arab mooy jaamu. est-ce que dégg nga. donc ba mu waxee ne abdu rek. maa ngi xaar mu ne moo leen tuubloo mhm. te xaw ma xaw ma mooy kan mhm, mhm. parce que ci onomaste bi boo xoolee tur yi rek ci ngay xam ne kii moom diine la indi diine ko léegi nag mission yooyu mooy li ngay wax ne toujours dafa am influence gis nga boo xoolee suñu histoire yi yëpp yëpp yëpp yëpp l'islam bi muy ñëw dafa ñëw ak xel dafa ñëw fekk nit ñi ne ñi tey mënuma leen li ma bëgg tey tey mu am ko mhm. damay naxante ak ñoom ci li ñu bëgg mhm. lu ci baax ma téye ko xam nga mhm. am na jinne yoo xam ne ci lislaam dafa am jinne jinne yàllaa ko sàkk dëmm la sàkku dëmm benn aay bu yàlla waxee ne dëmm na waaw wax na nag laa miñ bu am na bët bu aay am na mais jinne moom da ko tudd léegi nag gis nga biñ ñëwee fekk fa jinne yooyu ñeent yi nga xam ne duñ jinne yu jullit ñett yi fexe nañ bañ leen waaye yeneen ñeent yi dégg nga ci biir mu ne dañ ne ñoom nangu dañoo tuub mais gis nga bi ñu tuubee bañ xam ne ay léegi ñu ay ña fa nekk yàlla la ñuy liggéey l'islam la ñuy liggéey dañ leen fa bàyyi moo tax ñu bëri duñu comprendre donc nag loolu la ñuy wax syncrétisme nag religieux par boo déggee syncrétisme mooy da ngay fekk diine traditionnelle nga jël religion bu bi bi nga xam ne mooy lislaam wala mooy religion christi euh, chrétienne bu ñëwee nag day méngoo ak aada yi jël ci aada yi lu rafet mooy conférence boobu ñuy wax ne l'islam daf ko conférence ak aada na ko loo bañ aada na ko man sàcc laa xam nga sunu aada nangul ko sàcc loo bañ lislaam ne ko man bëgguma boobu de loo bañ mu ne ko fen mu a ko bëgguma boobu de loo bañ ñu defee seen conférence ba pare ñu daal def seen constitution signé seen convention ne juboo nañ ci lii juboowuñ ci lii donc je pense que loolu moom mooy force bi donc dëkk boobu muy wax ku laa euh, aussi <laughs> da ngay am kulaar soose moo tax ngay dégg ñu naan kulaar soose kulaar pël kulaar wolof ah, noonu mais ñeneen ñi. Uh-huh. Euh, pour wax ne rek parewuñu parce que uh-huh. am nañ ci yeneen ñaari élément vendredi bii di ñëw temps bi moo xat parce que pour wane bi ñu tuubee dëkk bi na mu meloon bu njëkk ba ak kéemtaane suñu borom yi nga xamante ne yàlla def na ko ci dëkk boobu. mu jërëjëf Bessél Alfi fu toog